parce que fii ci Sénégal principe bi mooy la liberté des prix maanaam ku nekk produit bu mu am mu jaayee ko ci njëg nga ko neex mooy principe cependant dañ ne denrée de première nécessité maanaam yi nga xam ne moom la ñuy gën a jëfandikoo. Mhm. ñooñu dañuy seetu seen njëg maanaam ñu fixé ko. Mhm. dafa am nag loo xam ne population bi dañ ci xaw a réer. mooy tey jii bu ma nee diwlin dafa cher nga dem jënd huile de tournesol dana cher parce que bokkul ak huile de bi nga xam ne moom la ñu encadré te pourtant ba jógee ci marché bi rek journaliste bi braqué la caméra bi nga ne ko diwlin bi dafa cher suukar bi dafa cher fekk na suukar ba nga jënd boobu encadré wu mais boo demoon ci suukar bi nga xam ne moo nekk en poudre bu boobaa prix bi dañ koy encadré te bu ñu la ko jaayee loo xam ne paase na li ñu fixé bu boobaa dégg maam boo boolee nit ki dinañ ko jàpp tabaski nag buy ñëw. Mhm. période ba forte demande la ci yenn produit moo tax ñun toujours comme dañuy défendre askan. Mhm. dañuy wax ministère du commerce xëy na ñu ngi may dégg na ngeen jël soble si ak pompiteer ngeen encadré ko ba njëg li ku ko jéggi ñu raq sa ndigg mooy dëgg waaye ba ma ko waxee ba léegi ñoom defuñu ko luñ def bàyyi muy yokk rek tey jii quinze mille francs la sac d'oignon fii nga xam ne moom lañ ko bayee loolu jégg na doyoo mooy soble mbay bi. mooy soble mbay mi nga xam ne dañ ko bay Sénégal. cher mille francs jégg na doyoo. lu tax ñun ñuy collaborer ñoom. Mhm. te buñ leen xalalee du ñu jëfee. ndax ñoom dañu war a protéger lay consommateurs. lépp lu ñuy bay walla lu ñuy importé li nga ko jëndee ak la mu lay dikk. wala la nga ko bayee at la mu lay dikk xam nañu ko donk nañ la tegal sa bénéfice bu ko defee ku nekk mos yow miy bay doo perte man mi jënd duma gaañ kiy jëndit du gaañ mhm. loolu mooy yoon waaye nag bàyyi nii rek ne marché bi da nga am dina kii te marché concurrentiel amul Sénégal fii entente moo fi am xam nga bu ñu ne marché concurrentiel mooy marché boo xam ne lu neex waay jaayee mais nag day am wujjee seen biir fii nag gars yi portable yi ah man de tey man lii lay jaayee tey marché bi nii tey marché bi nii la mooy entente loolu yoon da koy tere. loolu du yoon. du yoon. Mhm. donc. dumping non dumping beneen affaire boobu entente la. dumping mooy tey jii nga jaayal jëndee loo xam ne cher na mais nga bëgg a casser marché nga jaay ko moins cher. loolu moom Sénégal. do bu amoon ñun ñu kontaan. ah bon de parce que dumping c'est le contraire. bu amoon ñun dañuy. c'est le contraire de ce qui se passe sur le marché.